damay sante yalla bu baax di jël ci yonent bi salaatu alayhi wa sallam di sante CNL bi nga xamni mom moom la alaaji Maodo ngam jiite grand saltigué té madame ayta Diagne nek présidente jigéen ni CNL bobu ñom ñoko ko sosal seen bopp ci biir Grand Cap Vert ndax fi ñu nek moy Grand Cap Vert yoral ko sen bop diko ko doxalal seen bopp ba tay mu nek une réalité fi ci région bi ku nekk xam na ni CNL Grand Saltige bu jógee di nga gis ay góor ak jigéen yu am fulla ay boroomu ndomba yu am pas ay boroomu ndomba yu xam seen communauté mais yu déggoo ak seen communauté am solidarité am humanisme présidente Aïta Diagne nag tànn moom ci boppam wax ni dafa souhaité woon dafa bëggoon man Ngoné Ndoye di doomu bu na ñoom dëkk Tëngéej ma ñëw jàppale ko ci yen bi kon tey man dama am charge dama am charge des cadeaux, mais dama am charge de ak xalaat lu ma waxul sama jaar-jaar ci sama dundinu suis dafa de dimbali jigéenu communauté Lebu pour jëriñ Le monde est en digitalisation la ça va très vite dafa gaaw am que loo xam ne pas xam teel cee jàpp la waaye am na loo xam ne kenn mu ndax day li nga lañ moy ñun ñoo accueillir Sénégal ñun ñoo jur Sénégal ñun ñoo accueillir gouvernement ñoo accueillir institution waaye fii ci biir Dakar dañ fi doon daanaka ay jàmbur kon tey jàpp naa ne am nañu mission du ma ne pour redorer le blason lébu waaye pour delloowaat mbuum mbuum ca boy boy ba bépp xeet bu respecté boppam am na aadaam am na culture am am na organisation sociétale am moo tax ñu wax ne lébu

boo ko téyee nag day tax nga gën a bëgg say mbok gën a ànd ak say mbokk gën a yëg say mbok waaye say mbokk it dañ lay téyele